fi nekkal nekkal ñu fi kenn traitement d'information pour Sénégal ñëpp ñëpp gis ci seen bopp loolu moo tax fu Sénégal woote wala askan bi fu mu woote ay ñu ngi foofu noonu mais gis ngeen gars yi ñu ngi ñëw ba léegi nii gars yi ñu ngi ñëw ba léegi foo gis leen. mais déggal naa fi déggal wuy naa vous supportez ki ah damay supporter Sénégal. non non damay laajte. Sénégal score ñaata. lan score pour le Sénégal. 3-1 pour Sénégal. Eh, kon doo may gars yi dara. ah. dañu may yi ndey dañu jël coupe dañu jël coupe du monde dañu jël coupe du monde incha allah dañu door Égypte Salah jooy incha suñu gaynde dañuy dóor dañuy dóor 3 gis ngeen suñu mbokk yi ñi ñëpp Sénégal lañ juddoo. 3-1. fii force nañu la war a ndey yow. waaw gis ngeen de gis ngeen ñooñu lañu mais ñoom Séné wóor na ma ni Sénégal lañ mais déggal kooku kooku tamit mu ngi ñaxtu de mu ngi ñaxtu de. 3000 gars yi ticket 3000 francs gars yi 20000 lañ ñu koy jaayee ay sénégalais ticket 3000 nga bëgg koy jaayee 20000 ticket 3000 boo ñu fayee 10000 sax duñ la ko jaay da gars yi dimbali ñu tamit quoi ay sénégalais lañ. billaay xoola 8h ba tey ñu ngi fi. billaay ticket bu 3000 20000 lañ koy bu 10000 lañ bëgg bu 3000 sax mënuñu ko am ba tey xam nga dafa dese. mais est-ce que ticket yi jeexul. non ticket yi jeexul nit ñaa ngi ko di ko jaay. ni ngaa ngi di ko jaay ticket bu 3000 20000 lañ koy jaay. mais mais loolu fépp la de si àdduna ni ñu benn ticket jaay ko leneen tamit loolu si àdduna fépp la de. match bu toll nii Sénégal war a jouer matcham comprendre nga waroon nañ oyofal sénégalais ñëpp mën a dugg comprendre mais ticket bu 3000 ñu ko jaayee 20000 c'est anormal. du dëgg du yoon waaw mais euh, dafa excès quoi dafay excédé mais ah, mais tamit ñoom noonu lañ ko bëggee tamit xam naa de. Ah, tamit xanaa ñun ñun xam naa ñibbi la ñuy def rek. mbir mi comme comme ni ko gars dugg bi stade tamit seetaan match bi. noonu lay demee sax en tout daal ñu ngi ñaanal Sénégal waaw mu gagné ak jàmm xam nga ñu jéem a qualifié coupe du monde waaw Sénégal jëm ci kanam mais affaire yi métti na trop. ñëpp mënuñoo dugg moom ne ku nekk mën nga ko supporter fu ne. waaw dëgg la ku nekk mënul dugg moom mais tamit yàlla daal baax na daal yàlla baax na mais métti na daal stade bi métti na trop di ñaanal Sénégal nag. ñaata ngay joxe victoire. 2-0 rek baax na waaw. 2 ndawul. non 2 jaajëf